s'il vous plaît. On s'écoute, s'il vous plaît. Vous avez la parole, Barra. Barra. Non, allez-y. Non, allez-y. Barra, s'il allez vous plaît. Mais je comprends pas. Vous écouter. Non, mais attends, il faut le faire taire. C'est entre socialistes, hein, moi. Barra, allez-y. Moi, je suis libéré. S'il vous plaît, honorables députés, chers collègues. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le ministre garde des so ministre de la Justice, Monsieur le ministre Dutuchon, honorables députés, chers collègues. maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam je voudrais juste dire monsieur le président que je garde en monsieur le ministre garde des so ministre de la justice de très beaux souvenirs C'est quelqu'un de très courageux, c'est quelqu'un de très compétent et c'est quelqu'un boo xamante ni aussi son courage a transcendé des régimes. Chef du parquet sous le régime du président Abdoulaye Wade, moi je l'ai vu à l'œuvre. Il a refusé des choses yoo xamante ni ñu bëggoon ko ko defloo sous le régime du président Macky Sall. il a refusé de me mettre en prison, moi, Baragay. À l'époque, ce qu'il disait, mettez Abdoumbo e Baragay sur un plateau, ñu débattre politiquement. loolu la garde ci yow et courage boobu tey lañ ko gën a xaar ci yow moo tax choix bi dal na sunu xel que no prière vous accompagne nu savons que vous allez faire des résultats li nga xamante ni mooy le projet de loi mois je vais le voter parce que je suis à l'aise bi ñuy battre campagne nous l'avons dit ci sunu programme 42 deuxième point bi il a été dit que dañuy supprimer li nga xamante ni mooy ces deux institutions te alal ji nga xamante ni moom lañ fay jëlee ñu dugal ko ci des projets sociaux loolu la ñu gëm moo tax nu nous sommes très à l'aise par rapport à ce projet de loi et je voudrais dire à l'endroit de mes frères de benn Bokk Yakaar qu'ils devraient être aussi à l'aise pourquoi il devait être à l'aise en votant ce projet de loi. Parce que tout simplement, parce que tout simplement, da ngeen amoon candidat mu tudd Amadou Ba dem élection am 35 pour cent bi ngeen di battre campagne da ngeen waxoon ni ci continuité ngeen di dem continuité ngeen waxoon ngeen di def am beneen candidat bu leen opposé wax ni rupture lay def ay la yëwan ku ne xam na ni su seen candidat gagné du ñu tas au conseil des collectivités territoriales du ñu tas conseil économique sociale et environnemental mais ay la yëwan seen candidat gañewul on ne peut pas être plus royaliste que le roi sénégalais yi am na ku ñu fal moom waxoon na bu ñëwee daf koy dindi seen candidat waxoon bu ñëwee du ko dindi ay la yëwan seen candidat gañewul mais bàyyi leen ki nga xamante ni moom la sénégalais yi fal mu def ay réforme te nag bu ñu waxantee dëgg bu ñu waxantee dëgg réforme gën na ko ñaaw parce que en 2012 bi nga xamante ni moom en 2012 bi nga xamante ni président Macky Sall mi ngi tas au conseil mi ngi tas conseil économique social et environnemental xaritam moo fa nekkoon tout le monde connaît les relations entre le président Macky et son ami ma sekk Ndiaye mais la manière dont les véhicules ci ñi nekkoon au euh, conseil économique ni ñu ko doon nangoo mais gàcce la woon ba ci Abdoulaye Diop mii gendarme ñoo ko dogale ci digg mbedd mi nangu otoom c'était inélégant cette fois-ci nous avons été informés à temps ni dañu koy tas on ne peut pas plus royaliste que le roi ay la yëwan li nga xamante ni moom moo ci nekk mënuñu reprocher au président Diomaye de pas entrer en contact avec ñi nga xamante ni ñoom ñooy les présidents d'institution ku ci nekk da nga am sa approche ku ci nekk danga nga am paradigme bi nga xamante ni moom ngay demee on ne pas dire au président Diomaye que ni Abdoulaye wadd defoon wala ni président Macky Sall defoon noonu nga war a def forcément loolu mënta nekk parce que ku ci nekk am nga sa approche mais vous n'avez pas le droit de refuser au président Diomaye Faye ce que les enfants de Abdoulaye Wade n'ont pas refusé au président Macky Sall en 2012 ce n'est pas du tout normal ku leen wax loolu mooy dëgg ku leen ko waxul loolu mooy dëgg vous avez l'obligation d'adopter li nga xamante ni moom mooy ce projet de loi pour permettre enfin à celui qui euh, qui bénéficie aujourd'hui de la majorité des Sénégalais c'est-à-dire 54 pour cent des Sénégalais de pouvoir implémenter li nga xamante ni moom mooy seen programme keneen ku leen wax leneen mi ngi ci lu ko neex te lii ngeen nekk du dëgg du yoon adopter ce projet de loi nga xamante ni danañu mën a jàll ci lenn maa ngi leen di sant bu baax leen gërëm.